salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre chaîne préférée Dakar Net si kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñi topp alors Ouzin ngeen di àndal saa su ne ci émission bi nga xamante ni mi ngi tudd gise ak gise ak tey ñu ñëw fi nga xamante ni ah, moom mooy ah, D-Média tey seet si kenn ki nga xamante ni ñu koy woowee Pape Matar Pape Matar di chroniqueur ñu koy faral di gis ci émission yi nga xamante ni ah, bokk na si Ndoumbelane bokk na si les grandes gueules alors du ñu sori ci eh, waxtaan bi dañu koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk internautes yu Dakar Net ñu ñëw ci yaatal bi. Pape ñu ngi lay nii waaw maa ngi lay euh, fay di la remercier ci euh, invitation bi di nuyu ñëpp ñu nga xamante ne dañuy seetaan Dakar Net di leen jaajëfal bu baax a baax di rafetlu liggéey bi. alors tey dañuy waxtaanee un peu si actualité mais dañ koy démarrer si euh, président Macky Sall président Macky Sall woote na cohésion nationale maanaam mbooloo gars yi mbooloo nekk benn loolu lan nan nga ko gisee appel boobu. waaw appel bi de en soi dañ koy rafetlu parce que Sénégal dañu ni un peuple un but une fois donc lépp li nga xamante ne dañuy delluwaat ci suñuy devise boobu dañ koy rafetlu maintenant euh, dañuy naan ci nasaraan que ni tout arrivé à un départ lépp lu am rek am na li ko waral li ko waral nag yaakaar naa ne moom joué na ci euh, wàll bu am solo parce que aussi bu ñuy fàttaliku euh, ci élection présidentielle yi am na koo xamante ni moom ci boppam dafa doon dem ci yenn dëkk yi di fa làq yenn yoo xamante ni dafay mel ni dafa doon réclamer wu cette appartenance donc euh, tissu boobu noonu ñi nga xamante ne mooy suñu tissu social bi dafa mel ni dafa am ñoo xamante ne dañu doon commencé di ko di ko jéem a dagg wala di ko jéem a tas alors moom bu demee ba rendre compte que ni loolu du njëriñu Sénégal ngay gis nit ñoo xamante ni taxaw di naan président Macky Sall par exemple dafa yor titre foncier wu Fouta am nga loolu c'est des déclaration yoo xamante ni fu mu jëmoon mooy euh, séparer Sénégal ñii ànd ak moom parce que jàpp nañu ni ay mbokkam nañu ñii ànd ak keneen parce que jàpp nañu aussi ay mbokk ñooñu nañu te loolu dafa nekk ay mbir yu doy waar euh, commencé wul tey nag mais mi ngi commencé en réalité depuis 2000 parce que si euh, président Abdoulaye Wade gis président bi réclamé wu ci benn ennemi si nañ commencé gis yu mbir yoo xamante ni daal vraiment dafa doon sappe li nga xamante ni mooy cohésion sociale donc bu ko wootee dañ koy rafetlu mais woote bi na euh, dem fekk ji ay acte parce que aussi Sénégal dañuy gis ni homme politique yi bu ñu soxlaa yenn mbir yi wala bu ñu defee seen toj-toj ba pare dañuy dem taxaw di réclamer wu ci benn appartenance boo xamante ni confrère la te loolu dafa nekk ay mbir yu dangereux yoo xamante ni waruñu ko accepter mais aussi sénégalais yi waruñu accepter kenn di jël li nga xamante ni mooy seen gëm-gëm di ko utiliser à des fins politiques. alors gis nañ tamit euh, joxe na ay chiffres ba ni ay euh, ay trois cent cinquante milliards. quatre cent cinquante milliards chiffres yi bari na si temps bu ko bëgg a def et wax na tamit euh, ba ni cinq mille euh, enseignants aussi bëgg na leen jël noo gisee loolu noonu tamit. waaw xam nga tey jii boo demee par exemple fu mel ni Matam wala fu mel ni Louga am na ay écoles yoo xamante dañ koo tëj dañ koo parce que amuñu enseignant donc bu ñëwee 5000 lay recruter 5000 baax na mais ci gabu mille euh, wala gabu plus de 40 000 enseignants boo ci recruter 5000 dafa mel ni nga jël benn ndox bu ndaw nga sotti ko si géej gi du du du li nga xamante dañ koy xaar. maintenant loolu baax na mais na jéem fexe ba xam lan moo nekk derrière ces revendications maa ngi dégg ñuy wax waxu chiffre gis nga bu ñu yaakaaree ne ay plan ak ay projet ay milliards ñuy régler problème mu jeunesse bi xamuñu lan mooy le problème tey boo demee fac droit booy yi du problème formation booy yi du problème financement dañu am formation dañu yor seen diplôme li ñuy xaar mooy tey jii ñu jël leen recruter leen ñu dem liggéey nee nañ Sénégal dafa manqué ay tribunaux nee nañ Sénégal dafa manqué ay ay magistrats dañ manqué ay greffiers mais autant organiser des des des des euh, lu mu tudd ñooñu bu ñu amee li nga xamante mooy seen lijaasa mais ñu jël la dem liggéey ji recrutement bi loolu nañu war a mën a dem jéem a fexe ba xale yi nga xamante ne déjà yor nañu seen lijaasa ñu recruter leen dugal leen ci fonction publique leneen li nga xamante daf ci nekk aussi mooy ndaw yi bëgg nañu bay mais gisuñu tool gisuñu engrais gisuñu lenn ñenn ñi bëgg nañ def yeneen activité état bi dafa war a jàppale ndaw yi en ce sens que nii muy faciliter euh, entreprise étrangère yi mu faciliter que ñi nga xamante ne aussi mooy ndaw yi c'est que tey da am na ñoo xamante ni dañu nekk ci désarroi tey boo déggee par exemple bërki dem rek am na benn xale bu may defal témoignage mi ngi nekk actuellement euh, France nee na ci ay cuisine lay fanaan wala ci mbedd mi munul ñibbi si Sénégal parce que condition yu nekk fii nii gis na ko te mi ngi koy dégg chaque jour te mënul continuer tamit di dund ci condition yooyu xale bu ndaw nga jóge Sénégal dem yaakaar ne boo demee foofu mu soppeeku mais nga dem foofu gis fa ay conditions yu difficile donc xale yooyu bu ñu amul seen espoir seen réew nga gis aussi manifestation yi passé benn waaye taxaw ni pari foot buñ ko laal pourquoi parce que moom jàpp na ni lii moom mooy symboliser li nga xamante ne moom mooy espoir am parce que au moins mi ngi xëy di yaakaar ne tant que mi ngi joué mi ngi am donc yaakaar boobu la war a dekkal nu mu koy dekkalee nag mooy fexe ba li nga xamante ni mooy facilité yu ñu jox entreprise étrangère ñu jox ko Sénégal yi nga xamante ne dañoo nekk fii nekk ci biir réew mi bëgg liggéey mais fonk seeni réew nga jaar ci VDN nga jaar ci autoroute nga jaar feneen nag feneen di nga gis ay ndaw yoo xamante ni seen valeur yi ñuy jaay passé wul 3000 wala 4000 francs ci loolu war na ci ndékk war na ci añ war na ci reer nga xalaat charge yeneen yi nga xamante ni day togg day tegu ci noddam yooyu yëpp tey di wane que ni vraiment jeunesse bi am nañu ambition am nañu détermination am nañu pas-pas pour jéem a soppi seen nekkin mais li ci war a topp nag mooy état bi jàppale leen te jàppale bi du jël ay millions di ko dugal ci ay projet mais fekki leen ñoom ci lu ñu nekk nga jàppale leen boo fekkee par exemple menuisier métallique bi nga xool ni kii li mu soxla ay matériel la mais nga jàppale ko ci nga jël benn euh, dem quartier bu nekk boo demoon par exemple xool fa atelier yu gën a mag mais ñooñu nga accompagner leen wutal leen ay lijaasa yi wane que ni ñoom boo génnee fii dafay mel ni nga génne ci école de formation professionnelle mais dina tax ba xale yi tax taxawal ci mbedd moom yëpp dañ ko arrêté dañuy ñëw ci biir école menuiserie boobu mais pourquoi ñuy gëmloo nit ñi école benn bâtiment la war doon warul doon atelier boo xamante ni atelier soudeur la alors que li ngay jàng ci bâtiment boobu noonu li ngay jàng ci atelier soudeur bee ko gën a ñor donc je crois que vraiment war nañu mën a dem ci ay solution parce que solution yi ñi ngi fi mais aussi ñu faciliter ni ñi liggéey bi qu'est-ce que yi ne ci mbedd mi mi orange di firi di. doguma la mais joxe na ay kiiwu mbaam quoi ay sareetu mbaam. waaw ah non xam nga yooyu yooyu c'est vraiment vraiment c'est c'est malheureux daal euh, tey jii euh, waa ji d'accord maa ngi koy gis mu ngi def vidéo di naan way que moom dafay def liggéey et tout ça non du moom la ñuy caricaturer mais en fait. derrière lu ñu bëggoon jël instrumentaliser que di wanee Macky Sall mi ngi liggéey mi ngi financé loolu sa à dire loolu dafa dem ba sax à la limite dafay insulter Sénégalais yi du waa ji nga xamante ne moo am projet bi ak initiative bi non kooku dañuy rafetlu liggéeyam mais état bi wëlbatiku ci ginnaaw di ko politiquer taxaw di naan dañ ko financé di jéem a wane que nit ñi ô oh combien ñoom ñi ngi liggéey wala ñi ngi jege askan bi loolu en fait dafa nekk loo xamante ne lu lu lu doy waar loo xamante ni kenn mënu koo kenn mënu koo sax comprendre mais li ma li ma li ma gën a jàpp tey. mooy tey kesku yi ne ci tali bi mi orange di free money di di euh, lonage di yeneen kesku yi kesku yooyu nu ñu leen joxee autorisation mais nañ ko accepter pamata mu mu mu mën a am keskam ci mbedd mi pourquoi facilité yi ñu koy jël di ko def ñi nga xamante ni ñoom ñooy nasaraan yi wala entreprise étrangère wala entreprise nationale ñeneen ñi buñ ko bëggee mu tëleen xale yi tax taxawal ci mbedd mi fu ñu teg ñu yëgti leen ñi nga xamante ni aussi ay mécaniciens fu ñu toog ñu jëlee leen fa te au même moment ñu jël suñuy tali yi jël suñuy avenue yu gën a jox ko ay borom oto ñu taxaw fa ay concessionnaire ñu taxaw fa di fa ay oto donc je crois que vraiment. tant que mi ngi am ce développement de deux ak euh, traitement à deux vitesses yu ñu am ci différent dossiers yu ñu am Sénégal lii ñuy wax ni yëpp milliards yi baax na mais euh, loolu la nar a mujjee mooy jël jox ko ci benn wàll ñu ngi ñu ñu gën a jege seen jeunesse ñoom te askan bi grande majorité du si bénéficié d'accord alors gis nañ ni euh, li nga xamante ne moom mooy élection locale yi poussaat nañ ko troisième fois. en fait doo comprendre quoi pour yow lan moo waral pousse bi te aussi tamit ñenn ñi ni pousse bi dafa arrangé état bi ñenn sax ñu ngi naan c'est de bonne guerre parce que comme état bi jàpp na ni moom jekkuwul bu ko poussé loolu tamit dara nekk si. waaw xam nga xam nga euh, man li ma jàpp ci élection yi c'est-à-dire du sax état bi kese homme politique yëpp la la arrangé ñi nga xamante ne en tout cas dañuy yore ay ay élus euh, mi ay maires wala ay ay yooyu noonu. parce que ñoom actuellement xam nañu ni en tout cas maire a bëri boo doon xayma ci 100 pour cent jàppal ni 80 wala 70 pour euh, leen dañ leen dañ leen rejeté donc bu ñu demee élection dañuy ñaax mais beneen bi nga xamante ni man moom laa jàpp ni tax ñu pousse élection nga xamante moo société civile dafa wax lu leer nañ nee na mënul toog 11 mois bu nekk wala 12 mois bu nekk di organiser élection donc boo ñëwee da nga organiser élection 2021 nga ni léegi doo ko def 2021 koy def janvier janvier deux mille vingt boo si tegee douze ñaata lay doon xam nga kon da ngay génn deux mille vingt trois yaa ngi jëm deux mille vingt quatre. deux mille vingt quatre dafa am élection bu waroon am mi élection lan présidentielle donc man li ma jàpp législative yi da koy tëbal parce que ku la ni du ma organiser élection. onze mois bu ne wala douze mois bu ne alors que mu waroon organiser élection deux mille vingt un organiser élection mille vingt deux mooy législative mais bu la ñëwee man du ma mënuma onze mois bu nekk ma organiser ça veut dire que bu organiser deux mille vingt euh, locale yi du organiser législative yi. parce que bu organiser législative risque bi foofu lay nekk ci moom am na ay réforme yoo xamante ne bëgg na koo def en tout cas ñun euh, njort nañ ne bëgg na ko def te ci assemblée bi koy jaar te actuellement xam na ni amatul. wala bu demee élection dootu amati majorité mécanique bu koy permettre muy def lu ko neex donc moom li mu doon def mooy fexe ba gëmloo Sénégalais yi benn dilemme ngi nii soit ñu organiser benn élection si ñaar wala ñu bañ a organiser benn élection te benn élection bi lu tax mu koy gën a mooy local dafay nattu boppam xool fan la war a liggéey fan la war a doole euh, dooleel boppam xool aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey nëgam sénégalais yi bëgg nañ leen def euh, genre genre genre sondage lay doon ci moom bu ci paree nag préparer élection 2024 yi 2024 nag man njortu naan du doon candidat mais candidat lay préparer koy préparer mooy xool nan lay fexee ba bu ko tegee kooku gagné parce que aussi sa sert à rien ngay yaakaar nit bu ko fee teg kooku ñëw du jàll. donc moom ci loolu lay liggéey actuellement élection législative yi du gaaw am man de gaw ma ni dina am te bu amul après deux lay am bu amee après deux nag xam nañ lu ko gars yi chaque année. Euh, Abdoulaye Wade ba mu yéegee dafa tas assemblée nationale parce que soxla woon na une majorité mécanique keneen aussi bu yéegee même chose la nar a defaat donc moi je crois que dañu nekk di def violation flagrante droit euh, règle yi nga xamante ni ñoom ñooñu waroon tënk ñun ñëpp parce que bu ñuy demee ci conseil constitutionnel aussi euh, ba ka mag Sall saisiré ci avis bi nga xamante ni da ko doon demandé ci nëgam mun na wàññi mandat am conseil constitutionnel ba muy rendre avis boobu ñoom ñu bëggee tuddee décision defu ñu woon mandaa bi nga xamante ni ba ngay fallu xam nga ñaata la munoo ko yokk munoo ko wàññi alors mandat la wax ak ni munoo ko yokk munoo ko waañ donc député yi euh, du moins euh, maire yi ak maire yi ak élus yi seen mandat jeex na ça fait trois ans léegi ñu prorogé ko ku ko projet prorogé na dafa nekk dans l'illégalité. mais gisoon tamit situation oblige ndax mbas mi fi nekk tamit mën mën na mën na tax tamit mu am raison. pour euh, yokk ko. non dëkk yu mas yi gën a metti dañu organiser ay élections yu mag ba ci Guinée gi suñu wet yaakaar naa ni euh, organiser dañ seen présidentielle euh, Côte d'Ivoire bu ma jumul ak yeneen dëkk yoo xamante ni organiser nañ ay élections bu dul présidentielle di législative donc Sénégal mënul nekk exception mbas bi terewul ñoom ñu ngi def seen i meeting. mbas bi ngi fi ñoom ñi ngi def seeni i meeting di rassembler autant de monde ñi ngi def seen seen seen euh, ubbi nañu arène nationale ñi ngi commencé donc lépp li nga xamante ni ñor na leen ñi ngi koy def def na fi tournée économique am def na fi leneen ak leneen donc mas bi prétexte la rek pour jéem fexe ba dàq élection parce que en fait déggoon nañu Maître El Hadji Diouf wax ni seen première rencontre bu ñu amoon ñoom au sein de benn Bokk Yaakaar président Macky Sall lu mu leen waxoon mooy buggul élection laata 2024 te ci ci yooyu la jëm alors gisoo ni tamit euh, li nga xamante ni moom mooy dañuy taxaw foofu la si ñoom ba léegi ñoom dañuy def ay ay ay ay meeting saa su ne ba sa lënd bi sax def nañ benn meeting ñoom jigéen APR yi di wane seen bopp di wane seen doole est-ce que gis nga ni lu logique la si jamono fi ñu toll nii askan bi jeunes yi am ay problème liggéey ñuy woote di jël ay millions di ko def ci ay meeting waaw non ñoom moom dañuy yàgg wane mépris euh, à l'encontre de sénégalais parce que yenn yi moom wan nit ki carrément lijjantiwuma la faalewuma la la parce que bërki dem rek ci manifestation yi douze personne ñàkk nañ seen bakkan en tout cas d'après Amnesty euh, boo jëlee loolu nga. octobre ba novembre nee nañu plus de six cent personnes dee nañ ci géej gi loolu yëpp tey bu leen bu leen bu leen bu leen bu leen euh, doyul euh, mbir yoo xamante ni war nañu mën a def preuve de retenue mais da ngay xam ni carrément que ñii askanu Sénégal yi teelu leen seen bopp leen yi teel maintenant man j'aurais aimé courage bii ñuy wane tey détermination bii ñuy wane tey ñu wane woon ko. des jours euh, euh, derrière parce que tey boo xoolee ba euh, événement yi am ba manifestation yi am am na ñu bëri ñoo xamante ni pour nga invité leen plateau te la ñu accepté euh, bëriwul ñu bëri dañ demoon làqatu ñii dem nañu Côte d'Ivoire ñii dem nañu Touba ñii dem nañu feneen ak feneen dañu génnan réew bi dem seen yoon léegi nag. la nit di wane gayndeem di wane bandi bandi loom di toog ci télé yi di wax di menacer mais am na benn jamono man ci li yaa si laa yaakaar ni euh, fa ngay wane sa détermination fa ngay wane aussi au combien sa loyauté ak ci euh, sa sa sa passe-passe ci président Macky Sall mais ba ñu waree défendre Macky Sall gisuma leen woon tey nag comme jàmm am na tey comme xalif général di euh, Mouride di rafetlu lu mu def woote na ba jàmm am ci réew mi mais léegi ñoom aussi dañuy walbatiku di jéem a sauver seen i seen i seen ay poste di jéem a justifier aussi seen salaire yakaar nañ ne bu ñu taxawee dem jël ay nit fay leen deux mille francs trois mille francs euh, taxaw wane benn popularité bu ñu amul wane benn légitimité bu ñu amul dinañ nax président Macky mais buñ ko naxee kon ñu xam ne président Macky moom ku yomb nax la mais yaakaar naa ne moom xam na ni carrément que ni ñii lii ñuy def ni dañuy nax seen bopp mais mënuñu nax askan bi mais ñoom sax mënuñu nax ki nga xamante moom président Macky Sall